asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi fi teew ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara xam naa kàddu yi moom boo moytuwul sax mënoon naa ñàkk mbokk yee baax rekk di ñu jox kàddu muy kàdduy teraanga xanaa ak bëgguñu ñu soññee daara ji moom kenn du laajati ci lu muy yëngu lan la ndax leer na ni alquran ju wér péng mi ngi fi waaye leer na yit ne xam-xam bu wér péng mi ngi fi leer na yit ne gone yi ñu ngi leen di jéem a nampatal ci langum farañse te di leen yar li ci des kay mooy xanaa mbooloo mi nga xam ni ñoo taamu daara ji wala ñi nga xam ne ay jullit lañ ñi nga xam ne soppey alquran lañ naka la ñuy fexee wala boog nu ñuy xalaatee ba liggéey bi gën a mën a yaatoo naka la ñuy def ba liggéey bi gën a mën a sax talandi te yaakaar naa loolu mooy li nga xam ne moom la mbokk mi junj léegi di Cheikh Abdoul Ahad Sy di nan lañuy ñuy fexee yaatal liggéey bi ba génnee lenn ci barab bi yóbbu ko feneen mooy daara ji am na projet bu rëy rëy bu mu naal muy njàngum jigéen ñi ak yi gone yi nga xam ne dañoo mokkal alquran naka lañ leen di eh, dugalee ci barab bu yaatu ba gën leen a mën a former gën leen a mën a tiim gën a mën a nekk ak ñoom gën a mën a def ci ñoom xam-xam bi nga xam ni moom lañu ñu war a def ci ñoom wax ji jërul muy gudd mooy ay doomi jullit lañ bëgg nañ alquran sopp nañ euh, alquran bëgg nañ suñuy doom jàng bëgg nañ loolu continuer projet daara ji na ko ñëpp yëg na ci ñëpp jàpp na ñëpp dem jege ñi nga xam ni ñooy kilifay daara ji laaj leen nan la ak naka la ñu xool naka lañ ci jàppee te mooy lan daara ji soxla na beneen barab boo xam ne danañ fa gën a mën a yaatal liggéey bi benn barab bi jege leen wala barab bi nekk fu mu manti doon ci biir euh, réew mi ci Dakar waaye barab a ngi nii jege na leen di gën a euh, euh, yay ci ñoom vingt millions lay jar vingt millions bariwul vingt millions bariwul buñ ko waxee mën naa am am njóobeen bu toog fële daal di gàddu gi ñemam ne vingt millions ci daara daa bari déedéet bariwul fii ci senegal dangay gis ñoo xam ne wala barab yoo xam ni ñun ñëpp xam dañ ko ci Dakar gi barab yoo xam ne caaxaan képp lañ fay def ay doomi jullit ñoo fay financé ay centaine de millions ngir taxawal ko ay doomi jullit di fa dugg ay doomi jullit di fay ngir dugg fa te ay caaxaan rek la lii nag ci yàlla saa boroom la jëm benn dërëm boo ci def dem ci sëriñ moor Male nga xam ne moom moo yor barab bi ne ko ah lii day lenn na tax ma jox la ko mooy barab bii ngeen bëgg ngir gën a mën a yaatal liggéey bi fi laa ko dugal nañ ma ko fa dencal jàppal di sa dërëm booba ba ëllëg yowmal qiyaam barab bi lépp luñ fi yëkkati ci alquran wala luñ fi yëkkati ci kàddu xam-xam yool ba dana la fa fekk kon mbokk yi ñu ngi leen di woo ci loolu nañu fexe ba daara ji barab bi bum leen rëcc nañu fexe ba daara ji am barab boo xamante si nii liggéey ba dana fa gën a mën a yaatu ndam la ci waa koñ bi ndam la ci askanu daara waaye ndam la ci jullit ñëpp ndax mbir moom saa su yokkul bu ne ma ngay wàññeeku mbir bu yokkul wàññeeku am na segam daara ji dem na ba ñëpp xam ne xat na te warees naa mën a am lu ñu jël ci liggéey bi génnee ko yóbbu feneen mbokk yi nañ ci jàpp nañ ci jàpp nañ ci taxaw sëñ Mor yàlla yàlla saa borom suturaal leen saa borom taxawu leen liggéey bi rafet na lool képp ku fi teew déglu ni xale yi jànge rawatina ni nga xam ne noonu lañ doon benn benn lee xam-xam bi danga xam ne xale yi ñu ngi liggéey ci ñoom bu baax a baax a baax xale yi ñu ngi leen di saytoo bu baax a baax loolu nag yàlla na yaatu ñaan googu nag des koo war a dimbali niñ koy dimbalee mooy ñukki poos yi def ci mbokk yi ma baamuwaat ko barab bi bu mu ñu raw ñaar fukki million bariwul nañu fexe ba lijjanti ko jox ko mbokk yi ñu jënd barab bi yaatal liggéey bi yàlla yàlla sa borom def tawféex mbokk yi asalaamaaleykum barakaatu jërëjëf sëñ Ahmadou Fadal Ndiaye kaddu yi gàtt na lool waaye am na solo lool te mbokk yi jàpp naa ne dégg nañ ko bu baax a baax a baax xam naa kon waxtu wi daf ñoo xaw a xoj su ko defee ñaari xale yi nga xam ne ñoo wattu alquran xam naa ñoom lañuy àggale fukki xale ak ñett yi dafa mel ne ñaari xale ñoo ci ñoo ci ñoo ci des su ko dañuy kon su ko defee ñu woo kenn ci xale yi nga xam ne mokkal nañ waxtu wi demee tax rek ni waxtu wi demee moo tax waaye moom kenn doylu ci waaye nag dañoo bëgg sàmmanteeg waxtu wi bu ñu àggee ci fañ ko war a taxawal rek mën ko taxawal. jërëjëf sëñ Ousmane jërëjëf euh, sëriñ Baye Mahmoudan si njàng mi sedd na lool te am na solo xam naa waxtu wi moo ñu xaw a xoj tuuti rek su ko defee dañuy woo sëriñ Fadlu si mu joxal ñu ko diplôme am Baye Mahmoudan si mi nga xam ne doom la ci sëriñ Moodu Ayda si ak soxna maaxawa si dëkk Saalum ñu ngi woo sëriñ Fadlu si mu jox ko shahaadaam su ko defee ginnaaw bi ñu joxee Baye Mahmoudan si diplôme ba noppi dañuy woo sëriñ Ousmane Cissé mi nga xam ne mooy njiital parents d'élèves yi su ko defee mu wax ci turu parents d'élèves yi ñu bàyyi sëñ osman si su ko defee mu jël kàddu ci turu parent d'élèves yëpp euh, xam naa ci lu tolloog juróomi minute rek juróomi simili rek incha allahu taala sëriñ Ousmane Cissé mi nga xam ne mooy njiital parents d'élèves yi bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuh auzu billahi mina sheytaani rajim wa inni auzu bika wa abian ya doon yonce bi kalimatillahi tamaati min sharri maa mbokk yi maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk si turam ak santam eh, dina ma koy jëm a gàttal rek ndax eh, waxtu wi comme lu mu xat te léegi nootu gi jot moo tax waaye looy point la yoo xam ni eh, xaw naa xawoon naa takk tuuti hmm? ah, ah, allo ndax point xaw naa xaw xawoon bari tuuti ndax dañuy jàpp ni gannaaw bu ñu nuyoo ñëpp ñu nuyu Euh, corps enseignant bi mu xam ni mu commencé si sañ Mor ak ñu xam ni ñoom la àndal ñëpp di liggéey euh, jàpp si sëñ Bassirou sëñ Abdoulaat ak ñëpp ñu xam ni daal ñoo ngi si biir euh, corps pédagogique bi. di di nuyu itam monsieur Diallo mu xam ni moom ma jëloon parole léegi doon jéem a développé def évaluation wu daara ji nu mu demee. di nuyu na parents d'élèves yi ndax yàlla def na maa nekk seen bopp di jottali ndax parents d'élèves seen bopp sax. dañuy xam ni lépp lu xam ne jóge na si parents d'élèves yi war a jëm si sëñ Mor wala mu jëm si si daara ji day jaar si man man tam lépp lu xam ne yàlla def na sëñ Mor war koo yëgal tam daara ji euh, parents d'élèves yi day jaar ka jaaralaat si man kon nag taxawaay boobu laa am euh, fii ma wax leen nag nii leen gannaaw bu ñuy organiser depuis bu mu fi nekkee ak léegi lépp lu jëm si daara ji ñoo ngi siy taxaw euh, di si wax di ko jottali képp xam ni parents d'élèves de mu nekk nii buñ tolloo si conférence wala lu mu mën a doon lu xam ne jëm na si jàkk ji rek danañ fexe ba nga yëg ko boo ko yëgee itam lu si war itam danañ la ko sartonte gi yéen ba ngeen def ko li fi waxoon pour conférence bi taxaw ñu sant nañ si yàlla bu baax a baax ndax lu ñu waxante woon réunion bu ñu amoon bu mujj mujj am liñ si waxoon ba wax leen ni kenn ku nekk dana ko joxe kenn ku nekk tam joxe na ko liste baa ngi ñun ñi ñëpp xam nañu ne tam joxe nañ ko kon loolu ñoo ngi leen siy gërëm bu baax a baax seen seen seen seen topp seen topp lool di nuyu itam lu ñuy wax partenariat yi ñu xam ni Euh, daane ko daara ji moo leen tax a jóg moo leen tax a jóg si am am lépp lu ñu am dañ ko siy dugal te xëy na xëy na sax amuñu fi kenn ku fi jànge waaye xencu arxuraan moo leen fi indi xenc boobu nag ñoo ngi ñaan yàlla suñu borom subhaana taala fayal ju leen di nuyu ñu xam ni nag ñoo ko fondé ku ñuy wax sëñ Malick Ndaw ñu xam ne taxawoon nañu si taxawaay bi ba fondé euh, ba fondé li ñuy wax euh, daara ji ñooñu tam mënuñu leen a fay di di nuyu nag képp ku xam ne yàlla suñu borom daan nga fi teew te te fu mu nekk nii jagati wala leneen tax na teewoo fi ñoo ngi lay ñaanal tam yàlla sunu borom yëkkati la ak jàmm ñu xam ne yàlla def na jiitu nañ leen tam ñoo ngi leen di ñaanal barke alxuraan tam fekk fu ñu fi ñu nekk ak fu mën a nekk yàlla na fa barke alxuraan fekk léegi bu ñëwee si résultat yi résultat yi wane na boppam ndax képp xam ne mémorisation alxuraan la nga nga tari ba wàcc wala nga tari ba mokkal kooku résultat wane na boppam ndax bu résultat amul woon foofu eh, loolu du am mais nag dama bëggoon ngeen jàpp kenn ku nekk si ñun ñun parents d'élèves bi nii mokkal bii am na lu lu bari lu xam ne ñoo ko tënk am na lu baree bari lu nekk si gannaaw loolu la sëñ Xaadim loo doon wax léegi nii mooy xidma yi xidma alxuraan yi mooy taxawaay lépp lu bokk si alxuraan rek nga taxaw si loolu dina la na ni benn dara umpuñu si ndax fii ñëw nañ ci waxtu wu nekk fekk sëriñ fi sañ Mor waxtu wu nekk xam nañu bu baax a baax nu mu jàppee alxuraan jàppe ne ji nu mu ko jàppee sur le plan hygiénique lépp loo xam ne dafa bokk si cet boo ñëwee fekk ko fi lépp loo xam ne bokk na si sécurité boo ñëwee fekk ko fi doo fi joxe sa doom ba sa xel nekk si leneen loolu amul te loolu lépp ñoo ngi koy dund ak sëñ Mor kon nag ñun xam nañu fu baax a baax a baax ñun parents d'élèves yi xam nañu bu baax a baax fu sëñ Mor téye téye daara ji xam nañ ko bu baax a baax lu ñu koy mën a def kay mooy ñaanal ko yaaral dëgëral ko saxal ko ak ñëpp ñu xam ne ñoo ànd ak moom lii loolu boo gisee itam nañu war nañ ne résultat yi wax wax nañu nu mu demee lépp ndax euh, mémorisation bi muy muy mokkal arxaan bi moom mooy jëkk nekk si wàllu tubaab bi itam euh, monsieur Diallo def na léegi lu ñuy wax évaluation bilan wax na ñaata fi génne ak ñaata ñaata ñoo fi yàlla def na am nañu diplôme bi ñu soxla mais leen nag la am loo xam ni tënk tënku na ko foofu muy collège bu mu wax xam nga collège ubbeekuwaay la te tubaab dafa wax lu leer lu mu wax nii fu xam ni bu xamee ni luy dugg ak luy génne tolloowuñu équilibre amu fa tubaab loolu la luy dugg si si daara ji ak luy génn si daara ji bu ñu tolloowul équilibre am te ñu xam ne yàlla may na leen ñu jàng ba mokkal toogaat fi xam nga ñun génnuñu kon nag équilibre bu ñu am pour ñu mën a am ñu xam ni dañu toll ni ñooñu dudugaat si biir il faut ko ñuy mën a dem kon fu mu nekk farata la mu extension bu muy wax nii farata la pour ñu taxaw si man nag damay ñaan yee parents d'élèves yu xam ne ñoo ñoo ŋànk liggéey bi ñu bay jàpp ni daara ji euh, seen doom a fi nekk mais ñu dem ba fu gën a sori foofu fu gën a sori foofu sëñ Xaadim loo wax na ko léegi mooy ñu jàpp si liggéeyu daara ji nii kii sunu daara la lépp lu ñu fi def tam suñu bopp lañ ko defal defuñu ko kenn bu boobaa lii fi dina ma gën a sori loolu ndax suñu biir ñii am na kenn ku nekk xam nii Eh, yàlla may may na ko lu xam ne may ko keneen te ñoo ngi seen biir te xamante wuñu kon nag ñun suñu bopp dañu war a jéem a seet lu ñu mën a def ba loolu ñu xam ko waxtaan suñu biir ba ba yàlla def ñu génn si ay solution yu xam ni li ñu bëgg nii waa ni mi mi mi kër gi xam ni moom moo gën a jegeñ bu boobaa dinañ ko mën a am ndax nag créer beneen espace dëgg la waaye créer espace feneen loolu bokkul si complexe complexe day nekk fu xam ni ñooy bokk benn mankaan bu ñu nekk ndax baagante bee tax day am baagante bu xam ne mënul bay ñàkk ndax kii day dem di ñëw kii dem di ñëw te bu dee sori na lool loolu day daal di nekk gàllankoor kon nag dañuy ñaan yàlla def lu xam ne am na lu xam ne lu nekk fii te soriwul ñu seet nan la ñuy def kenn ku nekk parent d'élève mu nekk sa chantier mu nekk sa projet ñu mën si waxtaan mën si def ay réunion seet na lañ koy mën a régler loolu daal bëggoon naa ko si ñu boole ko si bu loolu wëyee itam maa maa maa ngi maa ngi gis parents yi yi lu ñu doon wax léegi si si wàllu si wàllu euh, taxawal euh, lu mel nii yeneen euh, discipline yoo xam ni mi ngi bokk mën naa bokk si daara ji discipline yooyu mën nañu mën nañu ko jàpp mii mi noonu ndax xam ngeen fu mu nekk nii daara moderne la ñuy mën a wax fu mu nekk nii daara moderne daara moderne nag moom mooy daara bu xam ni dafa am amélioration amélioration mooy lépp loo xam ne bëggoon nga ko mooy am sa kër sa doom di jàng di wàcc di di am yu mel noonu yàlla def mu am ko fii si daara ji muy côté côté li yeneen yëpp yoo xam ni war naa mën a banque euh, ànd ak daara ji mën a ànd ak moom dox ñu defee noonu ba fexe fexe mu ànd ak moom dox loolu daal moom mooy taxawaayu daara ji léegi nag bu ma euh, wax waxe sëñ Abdoulaat léegi dama di di di leen fàttali kenn ku nekk man tam damay ñëwaat fàttali leen parce que parent d'élève euh, bu ma yóbbantee si yéen tam dama ko war a wax yéen tam moom nu yóbbantee si moom dama ko war dellu si wat si daara ji loolu mooy doxalin buñ normal kenn ku xam ne indi nga fi sa doom te amoo benn gàllankoor bu doon sikk école tubaab ba dangay fay bu weer doyee nga fay kon nag nañ leen góorgóorlu ci fay bi bu kenn ku nekk li nga waxanteeg sartonteeg sëñ sëñ Mor taxaw na bu bu weer dee na na na na ko indi na ko na nga ko indi mi lu mu mën a doon nag nga indi ko kenn ku mu mën a doon ak foo mën a nekk bu dee da ngay bay wala leneen tam ne la na ni eh, dëkk eh, kër gi eh, dugub la ñuy lekk mboq la ñuy lekk ak leneen ak leneen boo boo indee saako dugub bi danañ ko lekk kon nag bëgg naa ngeen bàyyi si xel yéen ñëpp ku nekk si daara jeeg ku nekk si tool yeeg ku nekk si kër yi ñëpp boo fi indee sa doom daal ne wóor na ni jàppal ni sa doom ji ah da siy defar suñu borom te te te te te lu nekkul lu xam ne da koy ñàkk lu lu wóor lay doon lu xam ni pas-pas moo koy indi tam tam loolu moo lay yóbbule fu nga jëm ñun ñëpp lu ñu yor tam dañ ko fi waaye dem suñu yoon rek waaye lenn dong lañuy wan a def lu xam ne dinañ jëriñ ëllëg. mooy mooy mooy li nga xam ne eh, eh, taxawal nañ ko si si daara ji eh, def nañ ko si jàkk yi def nañ ko si leneen rek leneen rek leneen maa ngi maa ngi leen di ñaax si loolu di di di jégalu bu baax a baax a baax dëkkandoo yi maa maa ngi leen di ndax xam nga daara dafa nekk lu li diis a diis te wóor na ni fi ñu nekk nii milieu la boo xam ne façon nit nit bu nekk a ngi fi kon nag ñëpp ñu xam ne toléré nañ leen te dëkk si koñ bi war nañ leen sant bu baax a baax a baax léegi bu may ñëw damaa dugg si benn bitik di jënd génn bëgg a fay kooku ni ma xaalis conférence bi nga ñëw ma ne ko waaw mi ne ma bàyyil ma fay ko ndax sëñ Mor euh, ku ma ci ayib la xam xam ngeen loolu di euh, ay gis-gis la yu xam ni dañ koo dund xam ko si moom xam-xam melokaan moom itam si moom kon nag bu ñuy wax ni doomu soxna la doomu soxna la ah waaye wanewu ko ndax loolu itiwu ko itilu ko lu ko itteel moom mooy li muy def nii rek si jaam suñu borom kon nag dama bëggoon ñun ñu xam ni parents d'élèves la ñu bañ a yem sunuy sunuy doom rek ñu demee ba yàlla def même ñu fi génne nii créer association ni ancien des anciens eh, eh, talibé de sëñ moor xamal ni kon ñoom ñoo ngi si yoon wi ñun nag ñu tam buñ ko wàcc dañ leen góorgóorlu si loolu. jërëjëf dañu maa ñaan ñun ñëpp kenn ku nekk rek ngeen jégal ma te baal ma te te yàlla def ñu teewewaat fi at yi at te lépp luñ fi jaam tam yàlla ko suñu borom nangu. amin amin amin yaa rabbal alamin léegi nag def nañu benn ñoo bu yàggul rek réunion boobu luñ fa tënkoon moom moo doon moo doon. képp ko xam ne dugg si daara ji ñu wax la ni la dafa am pharmacie bu fi nekk pharmacie bi nag nangam la weer wu nekk dina si joxe ñeenti téeméer bu kenn ko amee soxla ñu jël si garab yi jëndal ko ko kooku waxoon nañ leen ko di leen ko fàttaliwaat am na ñoo xam ne matal nañ ko am na ñoo xam ne mataluñu ko loolu dama bëggoon tam ngeen xam ko bu baax bale ko incha allah parent d'élève conférence bi tam nag lu siy dem ak lépp ñu ne yaa am yéene en tant que parent d'élève euh, taxaw si yor ko jàpp ko te lan nañ ko mën a defee nag mooy ñuy ñuy diisoo suñu biir rek jërëjëf waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. xam naa waxtu yu xaw naa xat tuuti su ko defee xam naa dañuy uh, woo xale bi nga xam ne moom mujj ci xale yi rek mooy sëñ Moustapha Ndaw doom di sëriñ Daam Ndaw ak soxna Zeynabu Mbay dëkk tuuba su ko defee bu jàngal ñu tuuti rek ñu jox sëriñ uh, Ousmane Sy bu laaj ko incha allah aywa sëñ Moustapha Ndaw bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلقني فهو يهدين بسم الله sadaqa allahu alazim wa ballaxa rasuluhu nabiyil mustafa al karim jërëjëf sëñ Moustapha Ndaw moom mooy ki nga xam ne ma mujjoon ci xale yi nga xam ne wattu nañ alquranul karim di fukki xale ak ñett di ñaan suñu borom mu barke leen bu baax a baax xam naa dañuy woo sëñ Mor si su ko defee moom moo koy jox shahadaam ñi ngi woo sëñ Mor si mu jox sëñ Moustapha Ndaw shahadaam moom bi nga xam ne mooy doom ci sëriñ Ndaam Ndaw ak soxna Seyna bu Mbay dëkk Touba. kon bismillah sëriñ Mor si moo koy jox diplôme xam naa ginnaaw loolu dañuy woo imam Cissé mi nga xam ne mooy wax ci turu dëkkandoo yi dëkk ak daara ji su ko defee ñoo ngi woo imaam Cissé moom mooy wax ci kàddu dëkkandoo yépp bismillah ci kàddu yoo xam ne yu gàtt lay doon rek xam naa ñeenti minutes incha allah di ndokkeel mbokki dëkkandoo yi fi teew ci jataay bi am solo bi waaye di ndokkeel ayimba yi fi teew ak sëriñ si fi jógee yëkkati fi ay kàddu yu am solo ñu ñëwoon bokk ak waa quartier bi jataay bi waaye bokk ak sëriñ Mor si di ko ndokkeel moom i tamit ci jataay bu am solo bi di bisu alquran yàlla baaxe ñu ñu teewe ko di ndokkeel tamit mboolem ñi ko ci jàppale di ñaan ci yàlla li ñu naal ci daara ji yàlla yàlla mottali seen yéene di ndokkeel yi tamit way juri xale yi nga xam ne ñoo jàppale sëriñ daara bi ba mu mën a am résultat bi ñoom tamit am nañ merit ci liggéey bu am solo bi nga xam ne ñoom ñoo ko bokk kon ñoom it ñoom ñëpp ñu ngi leen di ndokkeel di leen ñaanal yàlla yéene bi ñu am ci seen njaboot ba dugal ko ci daara ji muy jàng ba mokkal alquran yàlla na yàlla nañ ko jariñoo yàlla na nekk barke ci ñoom ak ci njaboot gi yëpp eh, di wax ay kàddu rek yoo xam ne dañ ko yëkkati ci turu quartier bi waaye ci turu waa jàkka ji nga xam ne ñoo daara ji ñoo bokk quartier bi ci liggéeyub lislaam wala ci toolub lislaam bi nga xam ne macha allah ñu ngi koy doxal di ko rafetal Eh, di ñaanal yi tamit ki nga xam ne kenn la woon ci di bàyyi ci daara ji ñu tudd ko fi sànq muy sunu délégué de quartier bi fi jógee bu yàggul yàlla moom ko muy Alxasan Seck yàlla ko yàlla jéggal te yërëm ko yàlla na ko yàlla teeru teral ko ku uufoon daara ji la waaye ku ku jëloon njaboot yi daara ji def ko muy njabootam jàppale sëriñ bi ci daara ji kon ñu ngi koy ñaanal yàlla di sant rek sëñ Moor ak njabootam ci liggéey bu am solo bi nga xam ne ñu ngi koy def ci karte bi ñuy soññaat rek suñu bopp di soññ parents d'élèves bi comme ni ko fi ñi fi jaar waxee tey képp koo xam ne teew na fi rek nafataat nga ci njàngale mu rafet bi nga xam ne xale yi jàngale nañ ko fi ci taw ci waaye ci fiqh waaye ci muamala jëflante bu rafet bu jullit bi war a am ak ay mbokkam waaye fexe yi tamit bokk ci ñi nga xam ne dañuy dox jàmm di ko wax di ko melewoo njàngale nañu fi jàngale boo xam ne dëgg-dëgg képp ku fi teew tey am nga mbégte ci bis bi ak liñ fi dégg may wax ne lii moom bari na fooy dem fekke fa conférence xale yi di tari waaye nii ñu ko defee nii bariwul fooy dem fekk ko kon anam bu rafet la anam bu bu jekk la bu dal la boo xam ne li ñu bëgg feeñal ci xale yi dina feeñ waaye du jar sax mag taxaw di wax di del dellusiwaat mbokk yi wala dëkkandoo yi ci fonk seen diine wala fonk eh, seen réew wala am jikko yi rafet ndax xale yi def giñ ko def dafa matale macha allah côté bu nekk wala bu nekk laal nañ ci loo xam ne doy na fàttaliku loolu nag ñu ci ndokkeel bu baax sëriñ Mor si ak ñu ko jàppale ci liggéey bu am solo bii waaye nag waa quartier bi di ci am mbégte di ca sant yàlla ndax mën nañ ne lii quartier bi mu ngi koy puukare woo ci kaw mboolem quartier yi amul lii te moom mii sëriñ Mor Sy moo ñu ko may kon ñu ngi koy ndokkee di ko ñaanal yàlla di soññi tamit mbokk yi ak lépp lu waay man ci lii ñu naal te muy daara ji am collège bu xale yi mën a génn mën a gën a yokk seen xam-xam waaye bëgg yi tamit bërëb bi ñu bëgg yee salaat ngir mu gën a yaatal liggéey bi ñu di ci xaar ñëpp mu gën a jege fa nga xam ne fi lañ fi ñu fi lañ nekk loolu ñu ngi ci xaar képp koo xam ne rek jullit la ku baax la jullit bu baax la buy def ci yoonu yàlla mu def ci alalam te xam ne yàlla wax na ci alquran wa ma anfaqtu min shay'in fa huwa yuxlifuhu wa huwa xayru raziqin lépp loo leen def ci yoonu yàlla xam leen ne yàlla dina ko ful mu jariñ leen ci àdduna ak ci àllaaxira te fam lay jariñe ci ëllëg foofu la njariñ amee solo kon loolu tamit ñu ngi ciy soññ ñëpp di wax nañu ñu ñëpp nañ jàpp ci liggéey bi lu ci waaye man mu def ko ngir liggéey bi rafet na taaru na waaye eh, loolu mën naa tax mu gën a mu gën a yo yokk mu gën a yaatu te bëgg nañ ko ci yàlla yàlla def ko te mota ci baaxam jërëjëf yàlla mën na ko ma zaraka allah bi aziz walhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf imam Cissé xam naa kon eh, benn kàddu moo ci des laataa ñuy dem ci julli gi su ko defee ki jëlaat kàddu mu may ñu ci ñaari minute rek mu jàlle ko ci ñaari minute mooy ki nga xam ne mooy wax ci turu waa ndaween yi sëriñ Bamba Ndaw mooy wax ci seen bëgg nañ mu tënkal ñu ko ci ñaari minute rek incha allah taala bu ko defee ñu jël kàddu mu mujj nga xam ne sëriñ bi moo koy yëkkati bismillah sëriñ Bamba Ndaw ci ñaari minute rek incha allah. di santaat yàlla bu baax nag te daje bi nu fi dajewaat yàlla boole nu ca waaye bala may sore rek xam naa gàtt na waaye Omar Ndaw dañ ko fee tudd ba tey xam naa sax buñ ne ñaanal nañ ko ci kaamil yi ñaan am na ba noppi waaye kenn ku ci nekk na def musula seytaane jàng faati def dontale ñetti lixlaas jàngaayatul kursi fàllaxi naa si yéene ko yool bi mu doon a continuer waaw léegi liñ fi war a wax lépp defe naa ne ñi fi wax ñi fi jaar tënk nañ ko comme li ma wax rek santaat yàlla eh, di santaat waa daara ji muy diggante la ñetti nit ñi ñi ko séq muy Malick sëñ moor daam kenn ku ne xam na ne jëf baax na lool waaye xel mu rafet baax na Malick kero ba mu xelalee neen daara ji dama koo bëgg su daam ñaawoon am xel mën naa bañ am wala mën naa bañ a a am ba ca topp mooy bañ demee ba am ko di ko defit yàlla baaxe na leen am nañ kuñ yaakaar ndax dañ ne dénk koo wóolu may ka la neex te am nañ kóolute ci sëñ Mor ndax sëñ Mor nun ñii dañ ko daan fekki ba ba Ndar xam nañ jikkoom buñ ko wóoluwul woon duñ ko jox suñuy xale Maalik it ñëpp a koy sant dafa amoon suñu doom bu ko waxoon fii daaw ñu koy wax oustaz Mbuub mu ne coow leeg cant gi bari na di leen ñaanal bàyyi Maalik rek te bàyyi wax ji waaye nag buñ ko ñaanalee it boole ci daam ak i bokkam ndax daam xelam dafa ñaawut te balaa Maalik def dana ko laaj ndax dañoo wax ne boroom xel mu gudd te rëy te ñaw te rafet wecc na wilaaya waaye boroom xel mu nga xayee dafa rëy lool te ñaw te ñaaw wecc na seytaane bañ ne di nga maam daara ji buñ ko defoon nii defe na bu ne woon ah teg ko fi suuf lii boo ko fi defee nii kon kon mën naa bañ a wala buy amee du gaaw kon ñun ñëpp nañ bokk sant yàlla temps bi dafa xat waaye xam nañ ci lu bari ndax ñoom ñett li gone yiy wax mën nañoo ànd ndax kii li ñëpp wax ci ay bokkam xam nan ko buñ ko xamut it dégg nañ ko déggati ko Malick Ndaw na ko noonu ndax boo xoolee nit ki dañ ne moom dafa am loo xam bu nekkee ci loxob nit kii rek amul njëriñ muy alal ju nekk ci loxol ku ku ku nay ak dégg nga maam xam-xam bu nekk ci nit koo xam ne jubut ak jaay si ñaw ko ko nekk ci ab ragal waaw ndax xam nga boo àndoon ak ñu sant ñu sëy kaag yooyu ñuy xeex buñ séenee deret rek moom sànni seen jaay si daw loolu moo tax dafa gàtt daal ndax dafa xatitam xam nañ fi mu toll yal na yàlla def jàmm yal nañ ko fekke yu baree baree bare bari baax na jërëjëf. jërëjëf yal nañ ko fekke waat. amiin amiin yaa rabbal aalamiin jërëjëf sëñ Bamba Ndaw ci kàddu yi gàtt na loolu waaye am na solo xam naa kon dañuy jox kàddu gu mujj gi rek mooy kàddu gu sëñ Moor waaye nag da koy jaarale ci làmmiñu sëriñ Fadlu si su ko defee incha allahu taala bu jëkkatee kàddu ba noppi ñu ñaanalante incha allah bismillah sëñ Fadlu si alhamdulillahi bi nicmatihi tatimu saalihat wassalaatu wassalaamu ala nabiyina muhammad allati jaa bil bayinaati wal hudaa wa ala alihi wa sahbihi sawi ridwaan wa tamkiin noo ngi nuyu ñëpp ci kàddu yu gàtt ndax waxtu julli wi jot na kàddu yoo xam ne mu ngi bàyyikoon sunu mag sëriñ morsi si moom sëriñ Xaasa di ay kàddu yu cant rek jëm ci mboolem ñi nga xam ne ñoo doon jàpp ci liggéey bi li ko dalee ci ñi nga xam ne ñoo taxawu taxawaayu liggéeyub daara ji ba mu àgg fi mu àgg nii ci ñi jël seen alal def ci ak seeni xalaat ak seen itte ak seen jàppandal cant gi nag ginnaaw bi mu jiitalee sant yàlla mi nga xam ne war na ci bépp jaam julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam di sant ay waajuram mi nga xam ne ñoom la yàlla dogal mu jaar ci ñoom ñu yar ko jàngal ko sant mboolem sëriñ ci mos a jaar ci ay loxo sàkku xam-xam la sëriñ mahmudan si radiyallahu taala anhu ba ci Serigne Mor Diop Ndar ba ci daaray kokki rawatina Ndar gi xam ne fa la yeggale ab liggéeyam di ñaanal bu baax Serigne Mor Diop Ndar radiyallahu taala anhu ak moom sëñ Mahmadan ak mbag ñu baax ñëpp radiyallahu taala anhu ajmain yàlla yàlla doon leen yërmande ngërëm di sant bu baax ñu jàpp ci liggéey bi rawatina Serigne Malick Ndaw ak Serigne Daam ak seeni mbokk rawatina sëñ Bamba Ndaw mu doon wax léegi di ñaanal bu baax yërmande yàlla ngërëm ak njéggalam Serigne Omar Ndaw mi nga xam ne moo fi bàyyi ko bu yàggut ñu ko doon denc bi toos gi ba yaakaar naa ñaan yooyu la njëkkee woon ndax bi ñu soog a tàmbali rek jàng neen fi ay kaamil alquran yoo xam ne dañ ko ñaanal woy daw lii fi nekkoon ku ci mel ni Baye Alassane Seck di chef de bi dëkk woon ak daara ji xajoo woon ak daara ji lool amoon yërmande ci daara ji nekkoon taaliba cheikh waaye nekk julit xaqan ndax taaliba cheikh xaqan mooy julit xaqan waaye soxnaam mère Fafana moo nekkoon ndayi daara ji daan ko ci liggéey bi jamono ji yi nekk ci ab liggéey rek waaye heure bi fii la daan fekk mu si ak mboolem ndeyi daara yi ba ba liggéey bi àgg ci ay itteem ñu ngi koy sant bu baax baay Baye Diallo kon ñu ngi ñaanal bu baax gaa yu baax yooyu suñu amar ndaw ak soxna su baax si jàkkaarloo nag daara ji te daan def liggéey bu am solo def sadaqatun jaariya daan ko def ci dulit ñi ñu neexal wa démb ne daa wàcc waa ne nañ ko yéenal ñaanal ko ci kaamil bi soxna si ñu bari xam neen aw turam man nag damaa xamul turam dama ko fàtte sant bu baax suñu kilifa yi bopp yi waa kër moo sëñ Malick yi si njiitu sëriñ Malick si moom sëñ si ak Serigne Saliou Cheikh wala ak Serigne Moudou Aïda Sy ak ñi fi nekk ñëpp ak ñi ñu àndal di ñuy baax a baax a baax it di sant mbokki ndaw ku ndaa yi aju sëñ Malick yëpp yëpp yëpp mboolem ko bokk sëñ Malick ngay wëlëreem Baye Moudou Ndiaye lañ koy teg ci loxoom ak sëñ Ousmane Cissé ñu tegal ko mboolem ku sant Ndiaye ku sant euh, ndaw ak wëlëreem ak ku mën a doon rek sëñ bi mi ngi lay sant bu baax a baax a baax a baax di sant it bu baax Serigne Lamp Fall Serigne Lamp Serigne Lamp Mbay ñu koy wax si maam Cheikh Mbay taxawaayam bu solo sant bu baax sëriñ Modou Fall taxawaayam ba am solo ak sëriñ Xaadim Ndaw mi jàpp ci téere yi xale yi saa yu xale yi jàng téere yi xale yi jàng yëpp moo koy financé di ko wut sant mi nga la basang yi ak lépp lu daara ji aajowoo sëriñ Bàcc Ndaw ma ci jàpp di ko taxawee sëriñ Mor mi ngi ko sant bu baax a baax a baax waaye lépp nag laa xarwa gàcci ngaalaama lu jig njaag sëriñ Malick Ndaw mooy njaag ak sëriñ Daam Ndaw kon bi ñu santee njaboot googu rek mel sant nañ ñëpp te sant yi boo leen jàngalekat yi nga xam ne sëñ Mor mii li si temps yi bëri bëri am solo am nag ñun ñi nga xam le ne xale yi seen njàng mi wax dëgg yàlla sàmmonte na xiraa bi bu baax a baax a baax a baax ci xiraa war si yéen boo xam ne nii ni ko imaamul war sa jàngalee jàngal ko ay taalibeem xale yi kuy atteewu rek xam nga ne ci loolu lañ jàng ndax ñi leen doon teel ay borom xam-xam la ñoo xam ne seen xam-xam ci loolu la màcc mu sëñ Amar Gueye ak sëñ Ousmane si ñi leen doon bàyyi xel ak sëñ Ousmane Diop moomu kon ñi ngi sant mboolem sëñ daara yi jàngal xale yi ba alquran ji set set gi leer leer gi ànd ak ak mokk nag mokk gi ñu ngi koy seera ndax ñun bi ñuy tari alquran ci kaamilu alquran ñëwoon nañ ci tari ba te ba ñëwee am na sa xale yu ñu doon téel ñoo xam ne xale yi ni ñuy ni ñuy tajwitee fii nii noonu leen tere kaamil alxuraan karim te loolu jafe-jafe la bari waan ne xale yi mën nañu jàng njàngum baral mën naa mokk waaye bu ñu nee bay war conférence dañu leen waajal ngir ñu mën a tajwit tajwit bu baax xam-xam bii ñu fi leen ko jàngee français bi noonu koy jàngee noonu lañ sonnee guddi ak bëccëg kon loolu taxawaay bi tax mu am mu jàngalekat yi ak sëñ moor ak ndaw ko ndaay yi jàpp ci liggéey bi ak ñeneen ñu dul ñoom ak waajur yi parents élèves yi ak dëkkandoor yi sëñ baa ngi leen sant bu baax te di leen bu baax a baax yàlla na yàlla dafa ak fay suñu borom subhanahu wa taala dafa leen jéggal waaye ak sëriñ maanaam Abdoulaye Si ak mboolem ñu aju ci ñoom ñëpp di seen seen taxawaay Naas ay rasul sëñ Adama si ak sëñ Jili si moom sëñ Muudu Mbàkke si mi nga ne jarbaatam doon na fi tari léegi ak mboolem ñu fi teew sëñ Masamba Ndaw sëñ Daara ak sëriñ Saliou si moom sëñ Dam Faati ak sëñ Saliou borom rajo yi nii sëñ mën ñang julli suñu jarbaat ci euh, médiatisation bu am solo bi sant na la ci baax bu baax a sant bu baax sëriñ Modou Ayda ak sëñ Asa ak ñi mu ko ba Saloum sëñ Fallou sa rakkam ñu ngi leen sant bu baax a baax di sant góor jigéen mag ndaw ñëpp sëñ Mor ñu leen sant bu baax di leen ñaanal di ñaan it li sëñ Abdoulaye Sane doon wax balaa wi déwén yàlla na daara ji doon am na ko yàlla na a baax a baax baax di wax it na rek daara ji kat daa am a jënd barab waaye nag képp ku nga gis barab bu yaatu bu baax boo xam ne yaa moom am soo ko joxee daal daal ko mën na koo jël képp koo bi ñëpp laajo man aw barab moom la joxe waaye am sama xarit boo xam ne su ma ko waxee ne ah, soo ko waxee tuyaaba ji da nga ciy daal di bokk ndax da ngaa jokk da ngaa jottali ab sarax te ku jottali wax ko saraxee kon liggéey baa ngoogu yoon waa ngi noonu rek la ko mag ju maax daa wax noonu rek la foofu rek la bañ mën alxuraan ji te mosu leen a jàmbat mosu leen a yokkat mosu leen a tiit mosu def dara ñu leen sant bu baax a baax a baax a ci gërëm di leen ñaanal jàmm di wax ne ndaw ñi yàlla daal yàlla def ay mag def leen mag ñu am barke mag ñoo xam ne leen jëriñ seen bopp jariñ seen njaboot jëriñ seen i waajur def leen mag ñu am wërsëg am alxuraan fu ñu nekk si gil fa daara wa aaxu dawaan alhamdulilah baan wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jisaakum laxa jërëgéen jëf jàng fàllaxe ak naasi ñaan suñu borom musul ñu ci lépp lu mata mata muslu ndax fàllaxeek naa si moom boo njemoo ci min sërima xalaxa ja rek moom da dafa doy sëkk waaye lam ci teg ba ca ba mu jeexee ñu boole ko ci bu ko defee ñu ubbee ko faatee rek jàng ayatul kursi yu comme ni ma ko waxee taggee ko suñu borom jàng alam nasara ñaan suñu borom mu jàppanal ñu suñu mbir àddina ak alaxira waaye ñu jàng fàllaxe ak si nag musuloo ko ci lépp loo xam ne lu masa a musul gannaaw bu ko defee nag ñu ñu salaatu ala nabi gu waaye man rek def ko rafet njort bu baax te xam ne barab bi barabu ñaanukaay la heure bi heure ñaanukaay la ñu ja rafet njort te xam ne lu ñu ci ñaan rek yàlla mën na ko alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in xabul ak yaqin lii maanaam lislaam dimbalug jërma de làq ñu fu yàqaagul musal ñu ci ndog yeeg lor yi musal ñu ci gàtt fan ak deegu ñaaw musal ñu ci bekkoor ak bokkaale musal ñu ci ñàkk ak ràgg ak mooy yàlla sàmm ñu sàmm suñu njaboot sàmm lépp lu aju ñu ñun may ñu fan wu gudd ànd ak wér-gu-yaram wërsëgu yaatu wuñu mën a jàmm yàlla ci barke borom Tuubaa barke borom Tuubaa barke borom barke allahumma salli ala sayyidina